baax na maa sant yàlla di julli senant bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam baax na waaw billaahi di sant yàlla dëgg dëgg nag di sant Mouhamadou Nazir Niang mooy mudir bi nga xam ni moo nekk ci école maam Alaaji Abdoulaye daaw taaral na bërëb bi moom ak doomam doomam moo jàngoon alquran bu mu tasee mbir mi jeexee muy woo ma mu ne ma Ceerno sant leen yàlla mu ni yàlla defal na leen gëneel mooy yéen rek si Medina yéen a ngénte bàyyi dañuy dem ñun ñëpp gàmmu ba mais ngénte bi yéen na ko yàlla may mu ngi ci treizième édition te ñu ñaan ñuy sant yàlla bu ko Mouhamadul Bukaar di ko ñu moo ko doon taxawu njëlbeen ba tey te di ñaan yàlla itam mu continuer di ko taxawu ba lu yàlla sopp mu ne dëwën dam leen di recommander ngeen def ko mu nekk événement bu mag ngeen invité kilifa yëpp nga xam ne ñun ñëpp daañu bokkandoo dem Taïba bu ñu jógee ba ñu bokkandoo ngénte bàyyi fii lii moo indi sangu yu tedd yi xalifa Mouhamadul Mahi euh, Niass ibnu Cheikh Ibrahim waxoon na ma de façon ferme damay ñëw gëm naa ko itam parce que mës na fi ñëw balaa mu fi nekk xalifa mës na ñëw si moom bu ñu tàmbalee ngénte bàyyi rek ñëwoon na fi imaam Cheikh Tidiane Cissé yal na ko yàlla saafara si anamu wér moom itam ñëwoon na fi ba mu ko waxee ni nag euh, dañuy defaat gàmmu tay euh, euh, gàmmuwaat tay ba mu ne ma dinaa ñëw yàlla dogal mu dem Mali dellu si tey mu ngi Nigéria boo dewal ni suñu fi yàlla bàyyee dañuy seet date yi ñu mën ko organiser ba nga xam ni kilifa yëpp daañu ko mën fekkee parce que li fu sotteeku tey lii mooy yàlla mooy yonent bi mooy Cheikh Tidiane mooy Cheikh Ibrahim euh, suñu yaakaar si Bukaab man sama yaakaar day gën dëgër si moom rek première conférence bu mu fi def dama téye si loxoom ma ne ko dama lay ñaanal yàlla nga gudd fan nga gudd fan kot ànd ak wér soo guddee fan ànd ak wér dëri da jëriñu da nga jëriñee te alhamdulilah mi ngi ci loolu maa ngay ñaan yal na yàlla làq la fu mu làq alxuraan ba nga xam ni kenn du fa àgg yal na yàlla defal la ko defal na ko ñun ñëpp amiin amiin amiin di nuyu sama sama sëriñ sama soppe Mouhamadou Khoureychi Niass téye na sama loxo yóbbu ma ba si yaayam génne xaalis jox ma ni ma ziyaareel sama yaay mu ni yaayam kii sama mag la sama xarit la Thierno Amane Ndiaye la tudd loolu ndawul pour man bon man ngaa léegi dama gaaw jooy mais dinaa lu bañ jooy ko xam naa lu ma commencé li màggat moo tax ma gaaw jooy <laughs> euh, te ñu ànd ànd bu rafet duñu nëbbanti dara dañu waxtaan te suñu waxtaan dëgg la may wax dëgg laa koy wax waaw maa ngi sant yàlla ci loolu day toog woo ma ni ma dem la soxla ñëwal ñu am na lu ñu wax waxtaanee plusieurs mun mënu ko wàññi sax maa ngi sant yàlla si di ñaan yàlla itam man de fasuma yéene rocc ci loxo si loxo bu muy jox bi te dégg naa bàyyi mu ni ñoom bu ñu jaayantee kóllëre du ñu wàcc loxo moom di ñaan yal yàlla sàmm ànd boobu di ñaan itam képp ku ko bëgg yàq yal na la yàlla dëpp dum la man bàyyi naa ñaanal nit du bon wante yàlla mën na la dëpp ba doo ko mun yàq di ñaanal yàlla alhamdulilah sama sëriñ Mouhamad Bachir ba Mouhamad yàgg naa ko bëgg moom moom laa gën njëkk xam sax ak Quraysh am na ay années ça fait peut-être vingt ans à ñu ñëw fa conférence mi ñu ànd ak Papa Cheikh jamono jooju nekkagul woon xalifa ba ma yëwee ba nuyu leen dafa téye sama loxo teg si loxo Papa Cheikh mu ni ko Papa Cheikh mu ne ma ni ko taalibe Baay xaqan na ngi nii man yaakaar naa ni sax xaw mu ne ma bu ñu demee Medina danaa la wan place am wasifa jamono jooju fekk maa ngi am kàttan alhamdulilah bés bu nekk foofu laa doon wasifa loolu ku la bëgg moo la koy seddal te mu nekk itam kilifa si pays bi ku baax ku jub kuy wax lu baax yal nañ fi yàlla bàyyi ànd ak wér ak tal sàmmal ñu njabootu baay bi yëpp thème bii ma choisir man maa ko tànn bu ñu ma laajee lan mooy teemu euh, gàmmuwaat bi man maa wax nañu waxtaan ci tarbiya ci alquran ak xadis lan la ci wax lii génn fii loolu laa bëggoon mu génn te dama bëggoon mu génn ci làmmiñu kilifa yi pay Cheikh Ibrahim doomam yaa ko moom wante ñun ñoo moom bàyyi nekk na fi ba dem musul xotti xorma sharia te wax na ni billaahi wallaahi wa tallaahi ki nga xam ne xotti xorma sharia bokkul ci man bokkul ci Cheikh Tidiane bokkul ci yonent bi bokkul ci yàlla ñu bëgg na gannaaw baay jugal ci li nga xam ni yàlla gërëmu ko yonent bi gërëmu ko gannaaw baay lay am de comme ni ko Moustapha Niasse doon waxee daawaati jéeg def naa conférence ci jumaat yi gàmmu la woon Ansaarud Din moom a tànnoon boole ma benn télévision mu ne ma lan ngay tëje ma ne ko lu may tëjee mooy tarbiya yi ak muqaddam yi dëgg la man gëm naa ni Fatou Express am na gëm naa ni tarbiya express am na wante si ndigal nga koy ame lu rëy nga wax sànq bàyyi ndigal bu mot sëkk la am moo tax mu tasaare ci àdduna bi képp ki nga xam ne danga def sa bopp muqaddam te nekkoo muqaddam ngay maye wirde te amoo ijaaza ngay tarbiya si amoo si ndigal billahi allazi laa ilaaha illaa huwa Seexna yàlla daf lay alal am na am na ñoo xam ni kenn xamul kan moo leen defal lijaaza kenn xamul fan génn yi tukki rek ñu la may ma wirde nga mayee wirde te doo bu xadam yaa ngay def tarbiya ma nga maye tarbiyati ne amoo muqadam amoo ndigal ngay samp ay muqadam te amoo itlaax wala amoo amoo mu muqayyad yaa ngay def lu bon te nga koy askane Baye Niass bokkul si pays bi te du dëgg balaa ñuy def muqadam Mawlana Cheikh Tidiane dafa wax am fàttul bàyyi mu ne lan mooy fàttul akbar mu ni ngay jeex si ñetti xaqaay yi bàyyi ko wax mi ngi si jarul ma si duma def euh, un cours de un cours de de maarif déedéet bàyyi ko wax mu Cheikh Tidiane mu ni ku am fàttul akbar kooku njiit la dañ ko wax topp boo tarbiyaa nga joxe tarbiya te nga am si ndigal dangay bàyyi nit ki wirde comme nu ko bàyyi doon defee toppam yi daan ko defee kuy tarbiya mooy njëkk wax ni ana ah, man maay du yaa koy wax ni buñ la laajee nga ne affaire bi lii la lii la lii la rek demal si yoon gis ku nekk si jumaa ji di wirde nga daje moom nga koy tarbiya waaw jarul sonn kaay su ñu laajee lii de loolu du dara. du tarbiya du dara sabotage il faut qu'on arrête ça te ku loolu kilifa yi ñoo ko mën arrêté joxe ijaasa yoo xam ne dañ koy jaay wala dañ koy jënd wala dañ koy neexale xamoo waa ji am na fattu wala amul fattu musiba bu mag la koon nañu fexe ñu sàmm ñu bàyyi indi li kenn mënul yàq nag fay digg kenn kenn mënu ko yàq nañu tarbiya ñi ñu tarbiya bu wér am ndigal d'abord balaa ñu leen tarbiya bu ñu leen tarbiya ñu bàyyi bu ñu am fatu fatu express am na parce que fii si mbooloo la mais de fekk nga am ndigal ay oustaz a ngi fii sëñ daara la ñu kenn si kenn ki waat Tiwaawan la ñu woon ça fait plus de quinze ans temps yooyu ñun xam naa ñu newoon si ay xaal yoo xam ne sax xam xamuñu lu mu tekki mooy ba ma sañcee kër gi rek dañu ñëwandoo fii si kër yaa naa oustaz Ahmed Ndiaye moo leen indi kenn si hein oustaz Ahmed Ndiaye moo leen indiwoon woon mbay Mbaye la moo doon si kër léegi oustaz Babacar Ndaw ak euh, Cheikhou Satou Niang maa yi maa ngi doon sol costume ak pantalon noir ji tëdd si si bâche bi ñu ñëw nuyoo ba ñun dañu bëgg jël si tarbiya wirdu d'abord ma may leen wirdu saa leen tarbiya ba may jóg ñoom ñett ñëpp ñu am xot wàccee seen bopp itam wàcce seen bopp ñu ngi fii ñu ngi si mbooloo mi kenn si ñoom ba mu ko waxee laa ilaha illallah lu mu lu mu tekki bu mu ko firee bu mu amee fàttali dafa pare mu ne man nag dama doon tafsir bàyyi naa tafsir man xaw ma woon dara gàmm yii nga xam ni bàyyi moo ni yonent bi dafay teew Medina fii si kër gi dana am trent quarante pat yoo xam ne dañu jël rek àgg si yàlla mais ndigal moo koy mayee de ak bëgg a bàyyi te bàyyi dimbale la te nga xam ne yow boo koy joxee doo ci dara képp ki nga xam ne yaa ngi joxee wirde wala yaa ngi joxee tarbiya nga jàpp ni yow la du yow Cheikh Tidiane mooy joxe tarbiya du yow Cheikh Ibrahima mooy joxe boo leen wuutoo nga teewal leen billaahi alladi laa ilaaha illaa huwa bàyyi lu mu doon jox nit loxo mu egg ci yàlla mu defal la ko si jëppal mbir mi dëggu ak isdu nañu sàmm pee bi yéen kilifa yi yéen a yore waxtu te xam ngeen ko ñi ñaa ngi koy wax partout nañ ko décloisonné ñu wax ko ñu yar si ñëpp pour ñu mën défendre pays bu ñuy jàmbaat lii moo tax ñu ñuy jàmbaat wante du bàyyi damay wax ni grand bu bu weex tal la fi la fi la ñëwee moom la delloo itam amul benn gàkk-gàkk ñu nag bëgg ko doon bokk nag ay doomam ay muqaddamam fu mu tegoon tànkam donte mënuñu motal lépp nañ ko def suñu tànk li mooy li mooy njëkk wax ci premièrement deuxièmement bi mooy sëriñ bi man gëm naa ni man Sénégal kenn mënu ko yàq ak ku munti falu nga bëgg a xeex diine yi ak tarixa yi billaahi doo fi am at lu tax mooy Sénégal ñu lay fal ni wala di la folli taalibe Tijaan lañu taalibe Cheikh Ibrahima lañu taalibe Touba lañu laayeen lañu xaadir lañu taaleen lañu quatre-vingt-quinze pour cent man xam naa politique j'ai fait la politique dama ko bàyyee la la paresse politique ñii kenn mënul wëlbati seen pas ku ko jéem itam suuf bi dem te Sénégal c'est différent des autres pays nañu moytu nag nañu moytu nañu rafet dox ci si ñëpp mais nañu moytu bàyyi xel toutes les sources d'information et de sécurité ñu bàyyi ko xel di ko jëfee itam mais ku mu mënti doon muy pouvoir muy opposition nga fàllu Sénégal te nga fas yéene da ngay delloo gannaaw tarixa yi wala diine doo fi am at man loolu laa gëm li nga wax nag dëgg la il faut faire la géopolitique mondiale pour comprendre pour nga comprendre àdduna bi nu muy demee balaa ngay analyser lu yàq mbir mi mooy ñu bëre dañuy analyser di jël ay position xamul lu ñu affaire bi dara wax sa xalaat rek wax sa xalaat rek loolu yorewul réew maa ngay ñaan ñaan bi nga ñaanal pays bi ak xale yi yal yàlla musal leen man de ku woote xeex sama doom du dem sama doom du dem de te ku ma déggal itam doo dem bésu élection tënku ma kenn ku mu neex jëlal sa carte nga dem woteel ku la neex après nga ñibbi sa kër man loolu laa gëm te loolu laay def itam maa ngi ñaan senegal yal na ko yàlla aaral boppam te aar boobu dana am bàyyi moo ni Sénégal yàlla mi ngi ko làq sous l'ombre de la haqiqa muhammadienne tekkiwul nag dañuy yaafus yaafus ni doon ni bàyyi waxoon na ko rek kon affaire bi du am déedéet il faut ñu jëf si ñun tam ñu mën yan na yàlla may ñu fekkee ko ay at yu bëri sëriñ bi yan yàlla wëttu la la sa njaboot wëttu la sa yaay Quraysh yan na yàlla sàmmal la boppam yow ak setu baay yi ak doomu baay fi nekk yëpp yan yàlla wëttu leen di feddale sama kóllëre Seyda Maam Roxi ak <coughs> njabootu baay yëpp di ñaan yàlla yal na ma yàlla may ma continuer di leen bëgg mbëggeel bu sax mbëggeel buy yokk seconde bu nekk maa ngi ñaan yàlla na ma yàlla may ma dugg ci pays bi maa ngi ñaan bàyyi téye ma ba bakkan ban bokk ci liggéey bi lépp lu yàqu bakkan bakkan moo ko yàq te bakkan dëgg nag la ñu wax tarbiya bugguma dugg ci débat bi sëñ bi wax nga ci lu bëri relation entre bakkan ak yëpp yooyu dugg ci dugg mën naa ko waxtaan ak jamaa bi tout le temps moom la danaa leen koy waxtaanal mais fii du place am place daal tey mooy sama xol sedd na di jëjëfee jëjëfal parrains yi ak maren yi hmm. ku nekk def loo mën Seyda Awa sama soxna la wante sama jarbaal la d'abord sama sët la yaayam mooy sama jarbaal baayam baayu baayam tubaab la italien la c'est des négri boo demee Italie yaa avenue bu ñu ko tuddee d'ailleurs du négri du tubaab kurti kurti yooyu traitant la woon mu ñëwoon au Fouta nekk à seen maam mu soxla sox mu soxna soxla mu soxna soxna mu tuub ñu may ko setu Cheikh Oumar Cheikh Oumar Fouti kon surtout Cheikh Oumar Fouti la ku mu njëkk denc mooy xuray nay ni mu jur ñu jiitu ñu seen papa yi xam naa leen parce que man ñoo màggandoo soxna soosu gaañu ñu may ko ñeesam balaa mu ñibbi bu xale yi kooku am ñaari doom mu gaañu tey ñoom ñëpp taalibe Cheikh Tidiane lañu ñoom si ëpp taalibe Cheikh Ibrahim lañu ñoom ñëpp taalibe Cheikh Ibrahim lañu tey ñu si ëpp maa ngi koy ñaanal yàlla su ma waxee ku baax la mënuma weesu foofu man yàlla dafa ma dimbali dafa ma tànnal ñu baax fu mu mënti aaye ku mu mënti doon daa toog a añ indi foofu kon ñi nekkuñu loo xam ne kii dafa may liggéey ak dafa may sëriñ ak dafa may fas déedéet nekkuñu si loolu te naa ni moom ci boppam sama soxna yi wax na daf dañuy daf ñu yónnee xaalis kooku ku baax moo koy def musul def dara te tàgguwuma musul am su ma nekkee fi sax buy génn dana ma woo téléphone tàggu ma Thierno maa ëpp na si lu ma solu moom moo koy jënd wante du moom rek na te dafa ma jëndal benn affaire bu ñu tudd Polman grand bu Polman mu jox ma ko ma bàyyi ko foofu ay weer mu ne ma sa mbubb bi xanaa bëggoo ko ma ne ko nekkagul mbubb man léegi lu ngeen ma jëndalee yéen su ngeen ma joxulee ñaw dama koy xotti taraxlaayoo ko su may ñëw si mbooloo bi mu nekk di rek mu ne ma yóbbu ko ñu ñaaw ko danaa ko fay walaay kon ñoom ñu baax lañu maa ngi ñaan ànd bu ñu ànd bi si yàlla yal na yàlla wàccee si seen njaboot yal na yàlla baaxeel leen wante yan nañu yàlla def ay taalibe bàyyi man ak ñoom bëgg Cheikh Ibrahim yal nañu ko yàlla defal maa ngi ñaanal yàlla sama sëriñ Mawlana Cheikhul Khayri wax naa fii si kanamu mbooloo mi yàgg na weenam bi may nàmp meew buy génn bi mooy Baye man bàyyi yaruma si ñu ngeen di làkkali yéen arab bàyyi si wolof la ma yar ëpp na si lu mu wax si arab yëpp wax na ko si wolof dégg ak topp rek bàyyi mu ne dangay ngay déglu nga tënk lu mu wax li nga topp ko loolu mooy xam-xam ànd ak nag maarifa maarifatu billah dafa am loo xam ni yàlla moo la koy mayel boppam bi barke Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu da nekk si ay yenn situation yoo xam ni luy wàcc si yow sax doo xam fan lay jóge si yàlla lay jóge aw si yonent bi bàyyi ko wax aw si Cheikh Tidiane mu aw si Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu taala maa ngi sant yàlla bu baax lu ma dëkk ni Medina te di ko puukaree maa ngi sant yàlla lu ma nekk taalibe Baay te di ko puukaree woo maa ngi sant yàlla lu ma nekk xarit si yenn ci doomu Baay yi te di ko puukaree woo dégg naa sama sëñ wax kàddu bu mag te rek loolu rek mooy dëgg ki nga xam ne man doomu Baay Ñas laa doyu la dara dootu la doy ki nga xam ne taalibe Baay Ñas laa doyu la dara dootu la doy allahuma salli ala sayyidina muhammad